ñoo ngi nuyu mbokk ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan yàlla dolli ñu jàmm yàlla dolli ñu yërmande yàlla dolli ñu barke di nuyu ñëpp ànd ak yéen seen Hann TV ci jotaayu koor ñu dëkk dikkaat ak yéen tey ci waxtaan gu mag waxtaan goo xamante ni nii eh, doomu aadama bu nekk war na ci bàyyi xelam màng ko fexe ba màng li ci nekk ci ay eh, yiw li ci ñëw nekk ci ay barke boobu waxtaan mooy ban fàttali boobu mooy ban mooy bésub guddib laylatul qadr guddi gu mag goo xam ni suñu borom subhanahu wa taala màggal na ko guddi googu ñu xam ne mi ngi nekk ci weeru koor te weer wi xam nañ ni mu ngi jeex te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa jëloon la nga xam ni moo di guddi googu di ko wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waroon na guddi gi ci fukki guddi yu njëkk ci weeru koor waaye fekk ko fa wonuñu ko ko mu waraat mu waraat ko ci fukki guddi yi nekk ci diggu koor waaye gisut ko am euh, jotu ko waaye nag ñu won ko ko ci fukki guddi yu mujj ci weeru koor guddi googu nag di guddi gu màgg guddi googu di guddi gu tedd guddi googu di guddi gu barkeel guddi googu di guddi jàmm boobu guddi nag mooy guddi laylatul qadr ñun ñëpp ñu xam ko ci laylatul qadr laylatul qadr mu ngi nekk ci fukki guddi yu mujj fukki guddi yu mujj yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñuy wax ne nañ ko xool foofu dafa waxoon sax taxarraw laylatal qadr fi lwitri min ashri min al ashri al awaaxir fi ramadaana nee na nañu dàq laylatul qadr nañu wër laylatul qadr ci fukk ci guddi yu mujj waaye mu doon ci guddi yu tool yan yooyu guddi yu tool yi guddi ñaar fukk ak benneel wala guddi ñaar fukk ak ñetteel mbala guddi ñaar fukk ak juróom mbaa guddi ñaar fukk ak juróom ñaar guddi ñaar fukk ak juróom ñeent ñi gën kaa yaakaare nag ci guddi ñaar fukk ak juróom ñaar waaye daal ci guddi yu tool yi daal ci lañ ko war a Euh, lañ ko yaakaare waaye ñu gën kaa yaakaare ci guddi mooy vingt septième jour bi lañ ko gën a yaakaare waaye daal li ci mën a nekk nga xam ne moom ci fukki guddi yu mujj yi ci la laylatul qadr nekk laylatul qadr nag dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale su guddi gi jotee naka la ñu jaamoo yàlla ci guddi gi naka la ñuy zikkaree naka la ñuy taxawalee guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qaama encore laylat al qadr imaanan wa ihtisaaban nee na képp ku taxaw guddib laylatul qadr su taxawee guddib laylatul qadr taxaw gi nag mooy taxaw di jaamu yàlla di julli di jàng alquran di jàpp sa oom rukoo sàbbal fa yàlla rukoo bu dal yàgg fa daa di siggi dem ba sujoot sabbal fa yàlla yàgg fa ñaan say soxla yonent bi nee na ku def loolu ngëm yàlla tax nga def ko sàkku yiw ak tiyaaba moo tax nga jëf ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dina la jéggal say bàkkaar nangul la euh, sa ñaan yàlla yàlla may ñu nag ñu dab guddi gi ci guddi mujj yi guddib laylatul qadr suñu yaay Aïcha radiyallahu anha mu di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee ne xam naa guddib laylatal qadr ana ban ñaan nga may digal ma ñaan ko maanaam guddib laylatal qadr su ma fekkee ne xam naa ko ana ban ñaan nga may digal ma ñaan ko yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne ko saa yu la ko yàlla xamalee nga xam guddib gi guddib laylatal qadr del ñaan ñaan gi del wax ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nga ñaan ñaan googu mooy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ñaan gi li muy firi mooy lan yow yàlla yaay kii jéggale te bëgg jéggale maanaam yaay kii jéggale te bëgg ko lool di jéggal nit ñi yàlla nga jéggal samay bàkkaar ñaan googu ngay saa yoo jullee ba noppi moom ngay faral di tooyal sa làmmiñ di ko jàng di ko jàng loolu la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon yaay Aïcha kon nag am na suñu ña nga xam ni sax dañuy dem ba jël guddi gi daal di koy defaat benn xew waaye de du guddi gi du loolu la doon dox guddi gi daal soo ci yoree berndeet mën nga cee bernde doomu aadama jox leen ñu lekk ñu naan sàq ci sarax joxe guddi gi nañ cee julli guddi gi nañ cee zikar guddi gi nañ ciy jéggalu guddi gi guddi jaamu yàlla la waaye du guddi nag genre xew rek nit ñi def ko genre xew euh, la salu ba rafet daal di toog jàkkaarloo gaasa dañuy fàtte zikr biñ ci war a def dañuy fàtte julli yiñ ci war a def waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki guddi yi su fekkee na dikkaan na fukki fan yu mujj ci koor da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon bàyyi këram dem ci jàkk ji def li ñuy tuddee al itikaaf maanaam daa di moytu waa kër gi yépp dem ci jàkk ja lu dul aajo koo xam ne bu dëgër la moo koy génne aaju koo xam ne mënta ñàkk mu génn moo ko doon génne mu nekk ci jàkk ja di ko def daan na ci soññ waa këram guddi gi ni ñu jóg di jaamu yàlla soo amee sa njaboot di jaamu yàlla da nga leen di soññaale ñoom itamit ñuy jaamu yàlla kon nag guddi gaa ngoog guddib laylatul qadar suñu borom subhanahu wa taala daf ñu ko tuddal ci biir alquran suñu borom dafa wax ne am na saar bu ñu tuddee suratul euh, suratul qadar suñu borom wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadar mu ne wa ma adraaka ma laylatul qadar laylatul qadar xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha biidni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlaci alfajr allah suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne ñun ñoo wàccee guddib laylat alqadr loolu mooy inna anzalnaahu fii laylat alqadr ñun ñoo wàccee alquranul karim alquran bu tedd gii ñuy jàng ñun ñoo ko wàccee ci guddib laylat alqadr ñu ne waaw alquran guddib laylatul qadr kon guddib laylatul qadr ndax ci koor la nekk mbaa nekkul ci koor ñu ne aha kay ci koor la nekk lan moo ñuy wan ne ci koor la nekk ndax alquran dafa waxaat ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran ci weeru koor gi la ñu wàccee alquran wàccee alquran ci li ñu tuddee lawxul mahfuz ci alluwee ga nga xam ni ñu ngi ca ci suñu borom subhanahu wa taala alluwee ga nga xam ne li war a xew ak alquran bi yépp yàlla wàccee na ko foofu léegi nag foofu lay aaya alquran yi di jóge di wàcc di wàcc ci prophète yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag wàcc googu ci li guddub laylatul qadr la woon yàlla ne wa ma adraka ma laylatul qadr dafa mel ni guddi gi dafa yéem dafa daf guddi gu réy la goo xam ne yéeme la yàlla ne wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr moom yéeme na de lan mooy laylatul qadr mel suñu borom dafay laajal laaj goo xamante ne laaj bu laaj ku yéemu wa ma adraka ma laylatul qadr ah laylatul qadr yéemi ne de lan mooy laylatul qadr yàlla ja tontuwaat ni ne ne laylatul qadr xayrun min alfi shahr laylatul qadri xayrun min alfi shahrin nee na guddib laylatul qadr de soo ko bëggee xam moo gën jaamu yàlla kii nga xam ni ni ngi jaamu yàlla alfi shahr mooy junni weer ni nit ki di jaamu yàlla junni weer te laylatul qadr nekkul ci junni weer yooyu nee na guddib laylatul qadr kese nga jaamu ko yàlla moo gën waxula day tollool de déen moo gën junni weer kon loolu mbokk yi loolu lu rëy la jaamu yàlla yi ñu fexe ñu góorgóorluwaat bu baax takkuwaat bu baax jéggaluwaat bu baax fexe war guddi googu ci guddi yi toog di seetaan ci télévision yi mën nañoo toog yàq suñuy temps ba gis ne nga toog seetaan ba fajar gi di jot fekk defoo benn jaamu yàlla ci guddi yi loolu nag erreur la nag loolu nag njuumte gu rëy la njuumte gu rëy rëy rëy nañ ci bàyyi xel bu baax jaamu yàlla kon xayru min alfi shahr ñu ne guddi googu lan mooy xew sama borom indil la kaddu gu am solo mu ne tanazzalu al malaikatu war ruuxu fiha nee na malaaka yi ñoom ñëpp dañuy wàcc ci suuf ñoom ñëpp dañuy wàcc waaye nag suñu wàññee dañuy ànd ak seeni njiit ka nga xam ni moo di jibril alayhi salaam day ànd ak malaaka yi ñoom ñëpp ñu wàcc ci suuf tanazzalul malaikatu war ruux fiha loolu wàcc googu ñuy wàcc tamit bi idni rabbihim dañ koy wàcc ci seen ndigalu boroom seen boroom moo leen di jabal ne dem leen ngeen wàcc ci suuf ànd ak jaamu yàlla yu baax yi ngeen sàkku fa yiw ak mbaax ci yiw googu may wàccee ci guddi googu mooy war ruux fa bi idni rabbihim min kulli amr euh, suñu borom subhanahu wa taala ne guddi googu salaamun hiya nee na guddi googu guddi googu jàmm rek a ci am ay amu ci guddi googu hiya salaamun guddi googu ñu ne waaw mu ne salaamun hiya jàmm rek moo nekk ci ci guddi gi guddi la goo xamante ni nii jàmm day am barke yi di doddeeku di wàcc ngëneel yi xéewal yi wërsëg yi loo xalaat ci lu rafet lu baax ci guddi googu dafay wàcc ba kañ xatta matla'il fajar ba fajar fenk ba keroog ñu naan asalaatu xayru min an nawm malaaka yi daal di delluwaat ñoom seen place guddi googu noonu lay demee guddi gu am solo yàlla ma yàlla may ma taxawee guddi gu may leen ngeen taxawee ko yàlla may ñu ñu tombeek guddi gi ñu ci ñaan yëpp suñu borom nangul ñu guddi bi moo tax sax alquran di wax ne beneen aaya inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka alquran bi ñoo ko wàccee ci guddi gu barkeel inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka ba yàgg mu ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim nee na ci guddi googu la ñuy wàccee bépp mbir boo xam ne nar naa xew ci at mi ci guddi bi laylatul xadr la ko yàlla di wàccee ñii am ñii ñàkk ñii dund ñii de lii xew lu dul lépp borom ci fiihaa yufraqu ci lay teqali mbir yëpp ci guddi bi laylatul xadr kon guddi googu nag jekk na jaadu na ci doomu aadama bi bu bañ kaa def rek ay ay ay maanaam ay ay ay ay ay toogaay waxtaan Euh, maanaam def ko benn genre cérémonie yoo xam ni déet da koy def guddig jaamu yàlla jël sa jëbi teg ko ci suuf di sabbal yàlla di jéggalu yàlla xam ne yàlla rek kay yàlla yàlla rek am guddi googu loolu lañ ci sàkk doomu aadama bi na ko def kon nañu góorgóorlu ci guddi gi ñu tuddee laylatul qadr ñoo ngi ci fukki guddi yooyu yu mujj yi kon nag fukki guddi yooyu mu ngoog nee naa la ñaar fukk ak benn mbaa ñaar fukk ak ñett mbaa ñaar fukk ak juróom mbaa ñaar fukk ak juróom ñaar mbaa ñaar fukk ak juróom ñeent ci fukki guddi yi dañ ko ba wër ko ci jaamu ci yàlla ci vikr ci julli ci saraxe ci jox nit ñi ñam ñu lekk ci jokk mbokk ci topp ay waajur ci topp say sa sa borom kër ci topp topp topp topp macha allah ci guddi googu loo ci def rek guddi googu yiw la soo ko tombee incha allah yal na yàlla nangul ñu nangul leen nangul mboolee mu julliti kon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu